jërë ngeen jëf mbokku internetu Thiowli Sénégal di rafetlu bu baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci suñuy xibaar di leen wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waykat bi nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck moo daal di ñàkk ki nga xamante ni moo nekkoon guitariste bi nga xamante ni mooy Ousmane Cissé ñi gën koo xam ci dungus nekkoon ci li nga xamante ni mooy groupe Ramdan moo daal di ñàkk bakkanam ci xibaar yi nga xamante ni moom lañ fi jot tey ci suba ñaan yàlla yërëm ko daal di koy xaari àjjana di ko jaale ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck waaye tamit di ko jaale ñi nga xamante ni ñooy waa Ramadan xibaar yooyu moo fi rus ni léegi muy ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Cissé ñi gën koo xam ci dungus nekkoon ki nga xamante ni guitariste la ci ki nga xamante ni mooy groupe Faramareen ki nga xamante ni Wally Ballago Seck mooy tëdd fil bi moom lañ jot xibaar ni moom moo fi daal di bàyyeekoo naan yàlla yërëm ko daal di koy xari àjjana di ko jaale Wally Ballago Seck waaye di ko jaale képp koo xamante ni yaa ngi ci li nga xamante ni mooy wàllu jërë ngeen jëf Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.